Adama Fall maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. Adama Fall nga nekk membre ci Alliance pour la République euh, tey jii ñu lay laaj naka nga gisee rapport Cour des comptes yu baax yi nga xam ni génne na ko ñu koy tàmbalee lire actuellement. waa di rafetlu rapport yi génn. xam nga lu tax ma ne dañuy rafetlu rapport yi génn. c'est parce que rapport Cour des comptes moom. Euh, dafa dafa nekk dafa bokk ci ossature euh, république ak état. parce que état su la joxee moyen nga liggéey. dafay yoon mu saytu moyens yooyu mu jox xool naka nga ko gérer ndax baax na wala baaxul donc lii rapport yi génn warul mun a bett kenn donc du ñu def lu dul rapport lu luy rafetlu rapport yi nga xam ne génn na pour wane ñi nga xam ni ñu dénkoon lu ñu nu ñu nu ñu tëyee maintenant naka la ñuy lan fan la ñuy jëmee rapport yi nag après loolu moom euh, président de la République moo ko moo ko xam wala wala procureur de la République mais lu ñuy rafetlu daal mooy xam nañ xam ni nañ muy maire wala muy directeur wala muy ministre xam nañ ñu ñu téye woon rapport yi donc euh, loolu du ñu def lu du rafet du du rafet lu ko. est-ce kon da ngay d'accord si ñi naan euh, ñi nga xam ne rapport yi daf leen a épinglé même su fekkee yéen a bokkoon position ñu topp leen si maanaam justice topp leen si daan leen comme rek pro Sonko yi patriote yi niñ koy ñi nga yoree baaxul da nga jël alalu askan bi jaawale alalu askan bi def boole koog sa alal yoon dafa war a dal sa kaw ni mu war a ka nga bokk affaire sa nga ñàkk bokk affaire ci yëpp ndénkaane yorom ci laaj su nekkee nag dañ ci war a dañ dañ la dénk te yorin ba baaxul rapport wane ni yorin ba baaxul ñu nget ñu yóbbu ma procureur procureur moo nekk enquête ñu wóor ko ni lii ñuy wax yorin ba baaxul yoon dafa war a dal sa kaw. Euh, te nga bokk affaire sa ñàkk bokk affaire bi mm, am na ñu naan président Sall ci boppam sax ko war ñoom euh, Diomaye waru ko woon bàyyi mu génn réew mi. parce dafa war a rendre compte waaw. ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu dañu xamul dañu xamul nu république di doxe dañu xamul luy fonctionnement république malheureusement seen seen xol la ñu topp di wax rek mais dañoo xamul ni président de la république kenn mënu ko toppee dara loolu suñu yoon suñu loi réew moo ko wax ñoom nag dañoo bëgg layal dañoo bëgg layal li nga xam ni mooy am ci rapport yi parce que rapport yi moom dégg nañ tey ministre porte-parole du gouvernement wax ni kenn du ci topp kenn président de la république Macky Sall ko bàyyi su mu ngi toog tranquille liggéeyal na réew mi li ñu war mooy décorer ko te tagal ko parce que su réew mi naatee ba fii naat fii may jaar nga xam ne bëriwul yoon ñaat mel nii ba mel ni yoon du yomb c'est parce que président Macky Sall moo ko liggéey quoi nañ ko bàyyi mu toog noppali ko jàmm Euh, euh, ñuy xaar ci quinze mai bi dund gi wàññeeku jomaay moo ko digle woon di laaj benn plan d'urgence boo xam ne dina mën a wàññi daal dund gi nga xam ni moo xoj sénégalais yi est yaakaar nga ni lu ni mel lu mën a nekk la ak euh, jomaay xam nga loolu la bëgg mais li mu bëgg ak li a nekk dafa mu mënul nekk lu tax mënul nekk parce su nekkee ña ngay xam ni lañuy la ñu ko nar a dundee moo ëpp nañ la ñuy dundee wàññi bi day day day jafe amoo fenn ci àdduna koy dem ñu naan dañuy wàññi njëg li ñu war a def ñoom en tant que bu bees mooy yokk njëgu sénégalais yi yokk ce qu'on appelle le pouvoir d'achat des sénégalais mais wàññi njëg moom munul nekk parce que pour wàññi njëg munul nekk il faut ñoom ñu am ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire mooy li ñuy dund li ñuy dunde mu doy sëkk ba ëpp mais sànq mënuñoo am loolu wàññi dund mënul nekk te pour ñu mën a lu tax mënul nekk nag mooy dañoo dañoo lëkkaloo ay kuréel yu nekk au niveau international muy banque mondiale ak FMI banque mondiale ak FMI nee nañ nañu wàññi subvention nañu arrêté subvention yi te pour ñu mën a wàññi dund bi il faut ñu subventionné puisque nee nañ nañu arrêté nañu dakkal subvention yi donc wàññi dund mënul ne te pour ñu mën a wàññi dund il faut ñu wàññi tax yi te nguur gi dañu fàttani ay inspecteur des la yokk taxe la ñu xam pour am xaalis puisque dañuy yokk taxe nag wàññi dund mënul am loolu tax ma ne la na ñu génn wax dëgg sénégalais yi ñuy wàññi bëgg nañ ko de mais mënul nekk parce que jàpp naa ni su mënoon nekk ma Macky Sall dina ko def su mënoon nekk dinañ wàññi luwaas su mënoon nekk dinañu wàññi dund bi pour mbirum bu pour mën a régler mbirum luwaas nañu fexe ba askan bi suuf kër yomb ko ñu fexe ba askan bi ñu ñu am ce qu'on appelle les logements sociaux heureusement pour ñoom nag. Hmm. valider dañu les programmes des cent mille logements. bu ñu yem ci cent mille logements yi nañu teg programme bu ñu tuddee cinq cent mille logements pour permettre sénégalais yi mën a am dëkkuwaay bu yomb ñu mun ci dëkk te du ñu sonn loolu daal moo mën a nekk pour régler la question des logements. ba pare décentraliser les services de l' parce que suñ jëloon services yi ñii yóbbu ko Louga ñii ñu yóbbu ko Diourbel ñii ñu yóbbu ko feneen li nga gis askan bi dem ca boor yooyu pour mën a dëkk foofu. su boobaa location bi dina wàcc parce que tali dem na ba foofu donc dem ba dina yomb location bi dina wàcc mën a wàcc biir Dakar suñ ko deful li ñu bëgg duñ ko mën a am le quinze décembre moom suba man jàpp ma ni suba ni dund bi dina wàññeeku suba. quinze mai bi. <laughs> suba mooy quinze mai. jàpp ma ni dund bi dina wàññeeku suba. Euh, am na mesure yu Diomaye jël euh, peut-être laal na foncier bi laal pêche bi mais aussi wàññi train de vie de état bi nee nañ euh, ancien ministre yi dañuy dagg seeni salaire mhm. non dama ne les anciens ministres pour six mois juróom benn weer après seen bañ leen dindee il reste à la disposition de de maanaam ministre bi leen remplacé pour six mois saa yu soxlaa dossier bu ko comprendre mën na woo ministre bu ñëw juróom benn weer yooyu nag ministre yi dañ leen di fay ay payoor loolu Bassirou Diomaye mënu ci dara kenn mënu ko dindi maintenant ministre suñ la pour juróom benn weer nga toog ko benn weer yoo yooyu weesoo kenn waratu laa fay loolu du information loolu wàññiwul benn yoon train de vie wu wàññi train de de mooy da ngay ci hôtel nga dëkk di hôtel Méridien Président dem dëkk sa biir kër parce que chaque jour ñu ngi lay fayal un million six loolu du wàññi train de vie de l' état te état du Sénégal la koy fay. mbirum suuf si xam nañ la ca xew parce que ay inspecteurs des domaines la woon. Hmm. xam nañ la ne ci suuf sa xam nañ la ne ci biir suuf sa moo tax dañuy dañuy jël poudre aux sànni ko nit jël ay contre ko créé ko pour sénégalais yi wax sénégalais yi dellu gannaaw sénégalais yi tiit ñu reculer te loolu loo xew littoral bi bàyyi nañ ko Thiès ci bàyyi ko la jëm yeneen suuf yëpp ci teg ko ci suuf lañ jëm suufu Sénégal seen loxo la ne suufu ak suufu suufu Ndakaaru seen loxo la ne parce ñoom duñ ko jënd dañ leen koy may moo tax nag dañ koy teg ci suuf loolooy euh, bi ñu war ko tàmbalee exploité ci 15 mai bi. ko gisee BRT bi wax jërëjëf Macky Sall félicitation président Macky ñoom ñu doon ŋàññi bari tey bi démb ak bëri démb naan du nécessité yàlla def na ni ñoom ñoo koy mettre en circulation parce que président de la République Macky Sall inauguré woon na ko ba pare puisque ñoom ñoo koy mettre en circulation rek dinañ xam njëriñu BRT bi parce que ñi nga xam ne ñoo dëkk Géejawaay su BRT bi dawee dinañ xam njëriñ la ñi nga xam ne ñoo dëkk à l'intérieur ay résultats bi ki nag yooyu ba teer bi dawee xam na njëriñ la donc euh, dañ leen di bàyyi rek ñeneen bisimilah euh, BRT ngi noonu na ko askan bi dem jëli parce que dina régler la question du transport des des de la banlieue. est-ce que est-ce que aussi jàpp nga ni régime mu Diomaye bi mën nañu exploiter euh, ni mu waree BRT bi. moo leen war moo leen war ñu exploiter ko normalement parce que nag état continuité la te lu tax ñu ne état continuité la mooy lépp loo xamante ni baax na te ba nekk ci réew mi da ko war a continuer doxal ko ba mu ñëw parce que suñu exploiter normalement BRT bi kenn dox suñ ko exploité wul normalement nag seen seen defet la donc ñoom ils ont intérêt ñu exploité normalement BRT bi. kaaw Amadou Ba bala ngay tàggatoo noo ko gisee chef de l' opposition dellu si waat. Amadou Ba Sénégalais yi ñoo dem élection ne yow demal opposition te yow yaay ta yow yaay dem ceebu yow yaay nekk ceebu opposition. Mhm. léegi nag li ci liñ koy laaj mooy mu taxawee ko te doxee ko. leneen lépp amul importance. parce que constitution bu Sénégal moo ko jox titre chef de l'opposition chef de l'opposition nag du mbirum parti du mbirum coalition mbirum nit la maintenant nag dañuy fàttali ni Amadou Ba militant APR la responsable biir APR la su toogee biir affaire waa APR dinañ ànd ak moom dooleel ko ci chef de l'opposition bi nekkul leaderu parti bi parce que suñu congrès moo jox Macky Sall chef de parti muy leaderu Pari Alliance pour la République maintenant nag su nekkee dafa jël décision te duma ko ko digal génn alliance pour la république loolu terewul mooy nekk chef de l' opposition parce que askanu Sénégal ñoo ko jiital ci bopp opposition bi ne ko mooy chef de l' opposition. chef de l' opposition nag dafa am rôle bu muy joué. Mhm. mooy su jafe-jafe yi amee. ci wàññi mbirum wàññi dund bi Bassirou Diomaye dafa waxtaan xool naka lañ koy defee pour Sénégal mën a loolu mooy taxawaay bi ci war. jërëjëf Adama Fall ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité man maa gën a <laughs> ni Adama Fall mi ngi bokk ci euh, nekk responsable politique ci Alliance pour la ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité bi baax.